quart de finale y avait li nga xamante ne ni moom mooy Nigéria Afrique du Sud. Mhm. Euh, Nigéria moom moo mujjee dóor Afrique du Sud 2-1. Mhm. dernière minute sax la la affaire bi mujjee réglé uh-huh. euh, loolu lép euh, tey jii nii match boobu noonu sa sa analyse. est-ce que c'est surprenant ou c'est logique. Euh, c'est pas surprenant c'est pas surprenant parce que ñoom déjà ni nga waxee dernière minute la ko Nigéria gagné mu nekk ñaari équipe yoo xam ne ñoom xamante nañu euh, yàgg nañu gisante suñu defee calcul yi ci sat yi xëy na Nigéria moo ëpp lim ko daan mais jamono yi weesu Afrique du Sud sonaloon na ko trop. parce que juste avant euh, qualification yi ci période 2018 yi Afrique du Sud dem na fekk Nigéria daan ko dëkkam euh, gagné ko 2-0 ñu dem Afrique du Sud ci marché retour bi match nul donc ñooñu miinoon nañ leen et Afrique du Sud aussi moment bi ñu yëg si ci euh, quart de finale yi vraiment ñuy wane euh, football bu bu bu mucc ayib euh, organisation tactique bu baax ak organisation collective boo xam ne vraiment groupe bu hom homogène ba tax na talent yi am Nigéria parce que tamit société ñoom ñaar suñu ñëwee ci un peu ci hiérarchie ci bërki démboo Ndiaye Nigéria moo demoon euh, coupe du monde te Afrique du Sud demul donc mun nañu wax ne jiitoo na ko loolu euh, bu nekkee loolu nag foofu euh, quand même un peu hiérarchie bi respecté nañ ko amul amul surprise amul surprise c'était sûr que Afrique du Sud dina ko poser problème mais c'était quand même aussi sur que Nigéria ci ballottage favorable war na mun a génn ci ñoom bon nu nga koy waxee aussi football am ay coup de dé euh, ñu demoon ba euh, war dem match nul ba jege ji prolongation malheureusement góoru Nigéria juum te au niveau benn moment bi moom erreur c'est impardonnable boo juumee rek da nga koy da koy fay ba Nigéria gagné mais aussi avec euh, beaucoup de mérite c'était pas un hors-de-portée dëgg yàlla ensuite il y avait euh, voilà affiche bu mag bi. bi mhm. gënoon mën nañ gën a wax bi mag de non. Mhm. si si si coupe d' Afrique bi ci quart de finale yi moom moo nekkoon Côte d'Ivoire Algérie. Mhm. mu nekkoon match bu métti mais au finish les Algériens passent. waaw euh, ni nga waxee affiche bu métti moo tax it affiche bi xëcc na euh, xeex nañ ko ba ba jeexal nañ seen doole yëpp 90 minutes jeex na dem nañ ba prolongation kaan euh, bi nag bi ñu déparé Algérie am na fenn fu ñu ko féetale woon ñëpp de dem nañu surtout bi ñu génnee ci Sénégal neewoon nañu Algérie moo am équipe bi fi gën a huilé gën a rodé. Côte d'Ivoire nekkoon équipe boo xam ne seen coach mu ngi wax toujours ñoom ñu ngi ci reconstruction di defarwaat la preuve ba ba muy yëg si euh, démb ci match boobu xamul sax 11 am boo xam ne. Euh, type moom la am depuis début bi donc dafa doon làmb fii di làmb fi ci des mais terewul Côte d'Ivoire euh, c'est des compétiteurs miin nañu affaire bi même bu ñuy soox euh, Serge Aurier gaañu ñu ñu am ay absence Eric bay ñëwul ci CAN bi ñu Euh, colmaté benn défense mais terewul tenir nañ tête Algérie ba Algérie dem ba jaaxle ba ku mel ni Riyad Mahrez ñu génne ko avant décision bi di jot ça veut dire que Algérie boobu tamit euh, <laughs> mënul rek ñëw takk cravaatam balaade ci nit ñi il a fallu ñu batailler ferme ferme ferme ba yegg si euh, malheureusement ci fi gën a metti ci football mooy série tiro bi nga xam ne presque loterie la boo malheureusement capitaine nu ivoirien yi Siré Dié ki gënoon sax presque xarañ ci équipe bi moom moo manqué penalty pendant ça Algérie Algérie jàll mais aussi au vu du match au vu ci compétition bi li ñu war ñoom ñëpp foofu tamit euh, logique la Algérie jàlloon donte Côte d'Ivoire euh, défendre nañ grandement seen chance. Mhm. Mhm. maintenant comme li ma doon wax li nga xamante ne nii moom moom du du logique te ñëpp <laughs> te ñëpp xaaruñu leen woon moom mooy moom laa tuddee woon le le quart de finale des incalculables. Mhm. muy Madagascar. bi mhm. nga xam ne c'est voilà c'est la révélation de cette CAN. ensuite la Tunisie bi nga xamante ni vraiment bi ñuy tudd nit ñi xaaruñu ko woon parmi les favoris. Mhm. là il il est présent en battant Madagascar 3-0. waaw Tunisie dafa dal ci Madagascar boo xam ne euh, comme ni nga wax comme xaaruñu leen ñoom dañu ñëw ci CAN boo xam ne amuñu expérience. Mhm. Euh, ñëw di di jouer. di jouer euh, vraiment aussi euh, wane fa lu lu lu mucc ayib lu taxoon ñu war leen bàyyi xel ba tax na gëm naa ne bu suba lu ñu defate ci Afrique dinañ ci bàyyi xel ci ci Madagascar mais malheureusement compétition yu yooyu boo ciy dem danga koy da koy da koy gérer il faut ngay def sa gestion effective sa gestion quasiment ay temps de jeu mais ñoom malheureusement lépp dañ ko dañ ko dem quasiment cent à ba démb vraiment ku leen xool da ngay xam ni ñi dañu jeex takk amatuñu dara dara lu ñu war mun a tontoo euh, li leen Tunisie imposé te du lu bëri. Tunisie tamit ñu xam ne équipe la boo xam ne euh, comme ni ma ko waxee formation euh, école italienne la rigueur tactique ak organisation ñoom dañ ciy dañ ciy xarañ ànd ak Alain Giresse bëriwuñu sax gaa ay. tur yu jaaxal nit mais ci organisation bu wóor ak ci application ak euh, tactiquement ñu nekk en place yoot nañu yoot ba yóbbu Madagascar un peu à l'usure deuxième période ñu dem ba fi nga xamee ne amatuñu dara lu ñu tontoo ñu gëdd leen et puis gagné leen largement mais ça aussi c'était c'était prévisible parce que comme ni nga ko waxee Madagascar ñoom ñoom daal dañ fi dañ ci dal comme ni xale yi di wax euh, di wax tey dañ ci dal mais tamit euh, défendre nañ grandement seen seen chance mais malheureusement ils ont manqué de de jus parce que ay match yu métti la ñu génn ci huitième de finale ñoom foo xam ne fooguñu ko woon affaire bi ñor ñu dem ci ba daaneel un géant d'Afrique muy RD Congo donc euh, ñoom presque seen kaan jeexoon na loolu moo tax c'était un peu plus facile pour Tunisie ñoom ñu bett leen ba ba yegg si ñu ñëw ci quart de finale bi nga xam ne moo ñu moo ñu concerné muy euh, Sénégal suñu suñu Sénégal mi nga xam ne moo doon football ak ak ak Bénin. Bénin aussi nekkoon un des des des des voilà des des révélations de de cette CAN. donc bi ñu bi ñu ñëwee au final aussi la logique a a a parlé a imposé sa sa loi. Sénégal jàll. un zéro nekkoon na match bu xaw a danse mhm. mais expérience ak technique sénégalais yi mën nañu wax ne moo ci waaw noonu laa ko gisee mais mais Ahmed il faut que ñu ñu wëri jiwaat lenn beneen bi ñuy wax euh, révélation ak surprise parce que tam football euh, lu mu ci munti doon liggéey la ak organisation beneen soo delloo tuuti ci ginnaaw euh, seen continuité dañu dañu jóg am kilifa bu ñëw taxaw gëm sport bi dem jëli ñu seen xam-xam màcc ci sport bi ñu ñëwaat di di di liggéeyaat seen football donc dañ koy liggéeyaat loolu mooy ñor noonu fruits yooyu la ñuy récolter donc du surprise ñu yëg si foofu parce que seen président dafa dem jëli ji kenn koo xam ne euh, Jimmy Adjovi Boko moom ak ñoom Saër Seck ak ñoom Viera ak Bernard Lama ñoo ubbi fii académie jàmbaar mais mu dellu dëkkam. président bi nekk ko dama bëgg ñu defaraat équipe bi mu gëmloo ko ne football munoo jóg rek di tëñëx tëñëxi di dem il faut ñu demaat ci organisation bu baax depart ci base bi ànd ak tamit ak benn entraîneur bu miin Afrique entraîneur boo xam ne yoroon na leen je pense il y a ans bàyyi leen dem Côte d'Ivoire dem Guinée dellu donc xam Afrique et puis moom ci wàllu organisation tactique mu nekk ku am rigueur te ku ku xam li muy def donc kooku posé nañu problème naam mais ñun nag am na lu ñu leen ëppee doole mooy ñun vraiment am nañu benn potentiel boo xam ne loo organiser organiser tamit bëgguñu poser problème am na fenn foo xam ne bu ñu la fa waaxoo am na lu ñu la ëppale lu ñu la ëppale te loolu ñun ñu ngi commencé di ci di ci sukkandiku parce que yenn organisation yi am na ay jamono daan na ñëw noyé suñu liñ leen ëppale ba du ba du mun a exprimer wu mais ñun tamit toll nañ fenn foo xam ne voilà dernière CAN mu ngi noonu organisation bi dañu amoon problème détourné ko kese kese mu ngi noonu euh, coach boobu Brosse ñëw na wàccee équipe am posé ñu problème xamuñu fu ñu koy jaar mais loolu yëpp loolu mooy tax nga jàng démb mun a mun a xam tey expérience la loolu dal nañu mënatuñu mënatuñu dalaat beneen coow li bëri na marché bi yóbbu nañ ko fu ñu yeggul ba pression bi ñëw na mais on a vu une équipe sénégalaise boo xam ne ñu ngi màgg am maturité ils sont ils sont restés patients euh, bi ñu ko bi ñu teree ña ca kaw ñu jouer euh, Gana qui prend du galon ñëw na décanté situation bi euh, malgré ça dugalaat nañ sax ay ay yeneen but parce que benn moment jël nañ leen à à l'usure mais comme je dis foofu góor góorlu nañ appliqué nañ xàmmee nañu lu ndóbin rayoon suñu maam daaw donc duñu duñu dal ren loolu bu ñu continuer aussi di ci màgg di ci góorgóorlu di jàll ndànk-ndànk étape yi ñun di progresser parce que tam euh, ñun amee toll nañ fenn foo xam ne li ci ëpp suñu adversaire ñun la ñun ñooy teg suñu bopp ay coono ñun ñooy def loo xam ne naka su dul noonu te football dafa laaj pendant quatre-vingt-dix minutes nga appliquer góorgóorlu discipliné rigoureux loolu nag soo demee di jàng football ba am yenn niveau yi loolu rek dese la loolu yaa koy jox sa bopp boo ko boo ko defee ci match rek ala kulli àll Euh, ndam mun na ci mun na ci juddu mais yenn saa yi nag euh, juum wala nga oyofal euh, defe ne yegg na rek jeex na te football mosul jeex tant que arbitre bu waxul génn leen terrain bi dem leen ñibbi donc tant que loolu jotul tout le temps da ngay mel ni yaa ngi door a commencer première minute le maximum de concentration et d'application nga di ko def te gëm naa ne actuellement Sénégal bii ñu am tey bu ñu góor góorloo ci loolu Euh, adversaire ci kanam dañ lay jox rek cër naam parce que loolu mooy yoon. mais xool suñu bopp moo gën ñuy xool adversaire mm-hmm. merci euh, mm-hmm. décortiqué nañ match bi. Mm-hmm. Euh, mais tey jii ñu mën nañ wax ne spécialiste yu bari. ci cadre final bi d'accord nañ ne. Sénégal indi na beneen beneen xar kanam. monté en puissance sax la ñenn ñi wax. ci ci compétition bi li ñu wane woon ci commencement ak li ñu indi fii. est-ce que même même même gis-gis boobu nga ci nga ci am. waaw man man gis-gis bi may wax mooy rek ñetti mots yi ma la yi ma la mujj wax j'ai senti équipe sénégalaise bu sérieuse bu sérieuse parce que tam dafay am ay ay indicateurs ci ci ci yenn leaders yi euh, war a mouiller le maillot war a sol seen bleu de chauffe ñu xaw ko yombal euh, bugg ko jaar rek ci tuuru kese loolu gis nañ ne jeex na parce que tam dofuñu dem nañ ba benn moment xam nañ ne attention pression baa ngi ñëw euh, ku ci nekk ci ñun war nga def. ci à l'image de Kalidou Koulibaly tous les matchs il est égal à lui-même il est sérieux il est discipliné il est appliqué du début à la fin donc su kooku suñu xoolee ne attention jot nañu ànd ak kooku euh, muuru parce que gën nañ ci yenn match yoo xam ne xëy na euh, yombaloon nañ ko tuuti ba tax adversaire bi du ñu ñem boo boo gis nga boo defee attention chaque fois que ñuy jouer ak muy Algérie di keneen bu ñu nee bërët dañ ñuy jox cër bu mot sëkk taxaw dégluñu jox ñu cër ne attention Sénégal la ñuy joué bu boobaa ñun li ñuy def buñ ci boolee fayda boole ci boole ci xarañ monter en puissance bi yëpp un peu de plus de rigueur la bi ñu gisee keroog Sadio Mané andi décision ne man li ma mun mooy ku ma jàpp ci front d'attaque amul benn défense bu mu mun a të dafa décider jouer ci kaw défense su beneen bi jaaxle nañ la preuve am na kuñ ci expulsé parce que xamuñu lu ñuy liggéey mais da daan bàyyi loolu dellu si ci ginnaaw di seet nu muy def ak Gana Gueye wala di lijjanti luñ ko laajul wala Gana Gueye euh, dem ci ak euh, li gars yi di wax dilettante ba tax couleur ragaloon sax ne mais kii man comme reyu ma xaar xaaral ma ñeme ko mais keroog bi ñu àndee xar kanam boobu ne ñii comme beneen cool yi dafa bëri xaaral ñu defaral leen bagage ngeen jóge fi loolu moo war a nekk suñu attitude et ñu góorgóorlu parce que soo xoolee keroog ci benn wala ñaar ñett benn moment boo xam ne da ngay dem ba mu yaa ngi tuuti def affaire bu ndaw mooy li xaw a dal sabali wala talonaat bu bon bu gànn joxe ginnaaw di ko def gars yi fëkk ko sëkkatal ñu yooyu yëpp bu jeexee nga concentré pendant quatre-vingt-dix minutes euh, amatuñu adversaire parce que bu boobaa suñu adversaire moom ñi muy suñu bopp ñun euh, rey nañ ko ku ñuy jàkkaarloo da ngay da am soxla rek di ñu di ñu déglu maintenant après nag ndam moom leneen la amul kenn ku mun ne ëpp damay jël ndam li mais boo defee li nga war a def yëpp ah ala kulli àllin euh, lu mu yàgg-yàgg di nga ci jëlee dara. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, def def nañ analyse match bi analyse euh, groupe bi. Mm-hmm. mais mënuñu ñàkk taxaw seetlu aussi xaw nga ko jujj. les individualités. waaw yi. wax nga Koulibaly. mais cette fois ci Gana a répondu présent. mën nga analyser match am surtout il est il est il était temps temps Gana daf ñu doon daf ñu doon tooñ Ahmed daf ñu doon guddal rek Gana lii war na ko mun yàgg na attends mënuloo tamit. am benn niveau bi def formation yegg yenn échelon ba pare bu ko taxaw rek di di di di ko di ko yombal euh, suñu premier match bi ñuy gagné je dama leen sentir ñu ñu tranquille te man li may gën a déranger mooy soo tranquille bu match bi jeexee da war ne mais man dafa mel ni li ma waroon def am na lu ci manqué dol dolliwuma mais loolu même bu ko gànna waxul keroog wane na ne man li ma doon wane am na lu des te bu desee mooy damay benn moment bu ñu nee comme ñëpp dañuy focaliser wu ci Sadio téye fële Sadio Mbaye ñaar di xeex ci kaw man ma jógee ci suuf Pape Alioune nag may defal liggéey bi fii ci suuf ma ma jógee ci suuf dem dem dem wane. dem dem dem wane leneen. mais mënuloo tam rek euh, soo ñëwee fii euh, yombal ko euh, keroog bi mu ma li ma li gars yi di wax daal montant en puissance man xam lan laa koy tuddee. compréhension ñoom ñëpp aussi bien leader yi aussi bien Gana que Sadio parce que Koulibaly y a rien à lui la preuve benn xawee égratigné ne leen wooy da ngeen ñëw pour di reetaan euh, jëlee ko xol ba ñëw na reyante na pour tontu ñu doon def loolu loolu nangu naa ko mooy mu desoon gànn ak un degré moindre Sadio ñoom ñaar j'ai l'impression que comprendre nañu euh, xam nañ ne affaire bi du ay fo boo ñëwee nag parce que tam euh, potentiel boo ko amee keneen ki amu ko waaw ah, yaa xayti boo boo ko boo ko utiliser da nga koy da nga ko fay bàyyi mais boo boo ko amee bëgg ko denc di def leneen luñ la laajul amul benn montée en puissance ils ont maintenant compris que le foot c'est quatre-vingt-dix minutes de concentration d'abnégation di def li nga mun euh, Gana la mu ëppalee yenn milieu terrain yi daf koy wone Sadio maane la mu ëppalee àdduna parce que moom waxatuma sax ay nit foofu ci Afrique la mu ëppalee àdduna saa yu koy wone ku mu diri ci kanam boo fotul ñaar yoon ñetti yoon wala ñu expulsé la benn yoon di nga ubbi brèche ñeneen ñi jaar fa dugal bi donc euh, su continuer ci loolu am yàlla mën na ci wis ndox mu sedd. maintenant on va on va parler du du coach euh, Aliou Cissé mi nga xamante ne nii voilà depuis depuis boobu ba léegi ñu ngi koy critiquer. Mhm. <laughs> mais tout le temps mu ngi indi ay résultats nan nga nan nga gisee son son coaching euh, depuis depuis CAN commencé ak euh, mandaawam yëpp. suñ koy suñ koy critiquer surtout ci CAN bi dañuy dañuy bëgg wax rek lu ñu neex xam nga sànq maa ngi lay wax Ivoiriens yi ñoo nañ ci jouer contre Algérie à la limite seen entraîneur xamul ban onze lay andi euh, seen PP génne nañ ko tey suba gradel dugal nañ ko gannaaw suba andi nañu kii donc dem ba foofu toll ba foofu di làmbaatu Aliou depuis le début dafa dem ak ay certitude am man lii laa am lii laa mën a demee donc euh, yow ak man ak keneen ci yem dañu yàkkamti bu benn secteur xawee yéex tuuti ñu ne ah non foofu ba baaxul génnal kii dugalal ki ci des non il est resté dans sa logique il est resté dans ses et wax dëgg yàlla fi mu nekk ni ña ko doon di ngeen ñëpp wax dëgg yàlla bu ñu dee ils sont honnêtes avec eux suñu toogaatee na ah attention euh, la preuve son équipe monte en puissance et on retient on voit quasiment le même 11 à part au, au début parce que tam défaillance individuelle su amee tam nga xam ko teel ko identifier jële ko fii avant avant CDEM donc euh, moi je pense que daal fi mu nekk nii il fait son bonhomme de chemin et il le fait avec euh, li mu am góorgóorlu na ba comprendre loo gànn ne war nga mën a def lu ëpp lii gis naa ko keroog avant but bi euh, loolu man yàlla mooy sama seede euh, mu woo ko ne ko à la limite bàyyil Pape Alioune fii ci buntu kër gi yow gënal Euh, euh, CV yéeg leen ngeen di dem di jël intervalle yi mais loolu ba nga ko waxee CV génn na jox mbay ñaa occasion de but euh, ci ci ci une deux bu mu def mbay ñaa Niang bi mu ko defee gànn génn na am occasion de but marqué but waaw loolu ngeen bëgg ne du ngeen wax coach bi gàcce ngalaama ah moi je pense que wax dëgg yàlla fi mu nekk nii Aliou mun nañ ko wax gàcce ngalaama continuel comme ça na sa gars yi di dimbale di répondre présent gëm naa ne si gànn fait un match parce que man ci match bi je dis il a à pour cent parce que gis naa ci ñaar ñett yëf mu def yu oyof ba perte bal mënu mënu ma ko baal loolu euh, s'il vient à 95 pour cent Dapsi Mbaye Niang à 95 pour cent Sadio continue ci registre bi mu def parce que keroog j'ai vu un Sadio extraordinaire que moi j'ai aimé parce que lépp li mu laaj ci kanam la ko laaj lépp ci kaw loko laaj j'ai vu un Sadio vraiment bi wane ne lii mooy sama qualité ci laay joué loolu fu mu ko dolli ak fu mu ko def day boot Sénégal euh, yóbbu leen dara mënuñu dal tant que euh, ñun ci suñu bopp bugguñu teg suñu bopp coono. balaa balaa ñuy dugg ci affiche su demi-finale yi. Mhm. donc ñu ñu terminer juste rek. Mhm. ci ci ci analyse yi ak notre attaque. Mhm. Mbaye Niang en l'occurrence. son euh, inefficacité nan nga ko nan nga ko nan nga ko jàngatee. <laughs> quelle la solution aussi. <laughs> man man nag maa lay kii lay jaaxal. mois ça me dérange pas. moi ça ne me parce que soo soo gisee Mbaye Niang peut-être il est inefficace parce que il est moins lucide ci dernier geste yi parce que li muy xeex moo bëri. li ñu manqué woon suñu équipe bu njëkk dañu doon féete suuf xëy na bu ko buggee génnee par milieu yi mu mu bañ tout suite ñu allongé ko aussi bien Cheikhou aussi bien Kalidou aussi bien euh, Lamine Gassama ñëpp su gisul euh, gànna wala gisuñu euh, Henry dañ koy dañ koy guddal lépp li ñu guddal keroog boo ko seetoo mbay Niang su fekkee ne joué na vingt duels ci kaw dix huit et demi yëpp gagné na leen te dix huit et demi gagné na leen téye bal bi déglu équipe bi Henry Saivet ñëw damay def sagesse bi mu wéeru ci gars yi mu jox ko mu delloo ko mu génn euh, Sadio ñëw wéeru ci moom Diao Baldé Keita ñëw wéeru ci moom leneen li jóg yëpp bu ko téyul poitrine teg na ko ci tànk moi mbay Niang gàcce ngaalaama et li ma la mën a wax ak fit bu rëy buyam dina ñëw forcément yàlla bu gaañoom boobu metti parce qu'il a fait énormément d'efforts e pour l'équipe et sert et il est très utile parce que foofu su fekkoon ne moom maladroit na wala loolu muy def mënu ko rek équipe bi day gën a sonn parce que lu gudd ñëw rek day dellu si ci ñun mais vraiment lépp li ñëw téye na ko ba ba Aliou ñeme ne Henri Saivet demal ci kanam ndax ngay dugg ci intervalle yi Gana demal ci kanam ndax ngay dugg ci intervalle yi loolu c'est parce que il y un gros travail de sap bu mbay Niang di def di user euh, défenseurs yi ba dañuy dem ba sur la ñuy la ñuy terminer après derrière euh, bon gëm naa ne dina ñëw et te comme moom amul lu muy ragal moom c'est le gars parfait ragalul dara dara tiitalu ko dara jaaxalu ko donc euh, même yéen non pression yi ngeen dem moom xamu ko euh, et sur ce saa aussi ñu simil Aliou chapeau parce que wax dëgg yàlla yow man suñu caméraman bi après Algérie bu ñu juddoon woon beneen dugalul dañu naan y a quelqu'un bu ñuy tudd génne leen mbay ñaa dugal leen kooku Aliou ne non kii mooy sama numéro un tant que mun na moom laa jouer et loolu dafa am solo ci équipe pour pour garder euh, stabilité équipe et là mbay Niang joue pleinement son rôle et Aliou le lui le bien